position la nekk tey jii muy maanaam mbokk ci société yu nga xam ne ñoo gën a taxaw. ay matukaay jël nañ ko ngir liggéey bi fële ca Guinée Bissau ñu mun koo jeexal. su ko defee dëkk bile ñu lëkkale kook réseau OMVG bile. Euh, def nañ ci ay jéego yu mag euh, te yaakaar nañ ne 22 novembre 2023 dinañ pare liggéey yi. projet bii di projet interconnexion électrique bu OMVG dina yombal itam njënd mi njaay gi jëm ci wàllu électricité bu dox diggante ñeent dëkk yi le Ablaye ñu tàmbali ci lu njëkk ndaje yi nga xam ne Sénégal la soxal ak Gambie ñaari fan waxtaanee wàllu koom investissement ak surtout commerce euh, ndax mun na am tal ci ñaari réew yi. defe naa ne lépp luy renforcer coopération diggante Sénégal ak Gambie euh, lu ñu war a mën a baral la war ko mën a jëmmal war ko mën a dëggal parce que ñaari dëgg la naam waaye ñoo bokk lépp. Mhm. jàpp naa nag bu ñu duggee ci euh, li nga xam ne moo di échange sur le plan économique defe naa ni dafay gën a war a mën a renforcer suñu suñu diggante. Mhm. te lu gën a mën diggante Sénégal ak Gambie gën ko ñoŋal euh, si aspect bu mu munti doon rek defe naa ni lañ si war a def jaago rek autorité war nañ ko matal te ba pare wéyale ko te def naa ni ñu ko tàmbalee waxee ko ni defe naa ni nag lu baax la si diggante ñaari dëkk yi. ñaari dëkk yi ndaje bu njëkk ci wàllu koom day faatu jeexital li mën nañ koo xaar ci lu baax ci ñoom ñaar. am na solo waaye nag euh, foog ñu xoolaat euh, dem beeg dikk bi ci diggante Sénégal ak Gambie parce que ñiy traversé Gambie yëpp chaque fois dañuy am ay plainte yoo xamante ne dañ koy def ndaxte. Mhm. ñi di takk der yi ci Gambie wax dëgg yàlla ñoom it euh, seen i comportement yenn saa yi dafay xaw a tar lool ci sénégalais yi. li ma jaaxal Mouhamed mooy Sénégal ak Gambie suñu frontière ñu ne ci CEDEAO la ñu nekk CEDEAO lu ko tënk libre circulation des personne et des biens. Eh mais malheureusement Gambie boo fay jaar mais soo dul làmb loxo si poos doo dem fenn yow da ngay jéggi kii jox kii jéggiwaat joxaat kee daw tuuti joxaat ka ca des mais loolu laa xamul ci communauté boo xamante ne ñu ne ñun ñëpp benn lañ ek koom-koom bi dañu bëgg mu gën a lëkkaloo ñu bëgg dem beeg dikk bi gën a yemb loolu aussi foog ñu xoolaat ko suñu diggantee Gambie jege nañ benn askan la Sénégal ak Gambie du point de vue culturel religieux moom li ñu lëkkale bëri na lool mais nag ci wàllu koom mais aussi ci dem ak dikk surtout loolu am n ay jafe-jafe te bëgg nañu autorités yi saafara ko nu mu gën a gaawee ci jamono nationale ak euh, jëriñ ñu dénk wàllu finance budget bu Sénégal euh, mi ngi wër di jëwr euh, coow ci lu jëm surtout ci bonne prévision yi nga xam ne tappal nañu ko Sénégal ci jamono ji ak ëllëg maanaam at yu ñëw mu mel ni kon ñu si bëri jàpp nañu ne loolu lee fow ñu daal di koy xolaat ndax ménguwul askan wi di dund jamono yi ci ay tartar ak yi njëg yu cher en tout cas sociologue bi di Ali Khoudia Diaw mi ngi wax ni loolee dafa war a feeñ dëggantaan nag ci askan wi suñu bëggee rek ñu mën a tàccu ñu teewlu ko gestion institutionnelle économie réelle pour nga mën ko analyser da ngay ci le contexte local xam ba xam mi ngi avancé wala mi ngi reculé te loolu ni nga koy xamee mooy ci revenu doomu aadama yi ak seen façon bi ñuy dundee économie réelle mooy li nga xam ne moom la nit ki di dund au quotidien te dund bi métti na métti boo xam ne da nga koy ressentir ci li ñuy wax charge fixe yi mooy charge yi nga xam ne chaque fin du mois tu es obligé de les honorer c'est le loyer fekkee amoo sa kër la scolarité des enfants c'est boo ci dindee charge yooyu sénégalais bi li muy desee du bare donc il est tout temps déficitaire sénégalais bi mi ngi am impression que ne moom bu ñuy wax naan économie bi baax na économie bi jaar na yoon moom du ko santé parce que li muy dund ci terrain bi ak li ñu koy wax ci kaw c'est diamétralement opposé boo nekkee dans le contexte sénégalais soo bëggee xam économie réelle bi avancé na wala avancé wu da ngay ci suuf ci nit ñi koy dund mi des ba léegi maintenir dépense de prestige yi maanaam métti lu mu métti métti ci dund gi ci miim réew bu ñu bëggee jënd loo xam ne euh, njëg la foo ko takk weesu na ko day cher lool koy jënd bu dee sax léegi léeg dañuy sacrifier wàllu lekk gi moo tax euh, xëy na lu ci ëpp ci lu jëm ci wàllu euh, ndékki añ reer moom gis ko ci kër yi lu jafe la ñu wéy di ko teewlu par exemple sénégalais moyen bi nga xam ne mi ngi gagné entre deux cent et trois cent cinquante mille par weer parfois loyer bi muy fay sax dafay dem ba digg salaire bi parfois trente cinq à quarante pour cent du salaire boo jëlee scolarité xale yi mën na jël trente pour cent ci salaire bi wala ci revenu bi nga xam ne ki nga xam ne dafay jaay daf koy am boo jëlee alimentation bi lekk bi parfois day dem ba quarante cinq à cinquante pour cent da nga koy fay donc loolu boo ko xoolee moo tax sénégalais donc les sénégalais montré qu'ils sont fatigués en sacrifiant l'alimentation et parfois les postes budgétaires qui étaient réservés aux soins sanitaires. Ablaye ban jàngat ci jàngatug sociologue bi ci satisfici bu mi ci Sénégal mu ne dëppoowul nag ci lu askan wi di dund. waaw euh, dafa naa ni euh, résultat moom bu génnee euh, fañ koy mesurer day sori loolu ak li nga xam ne mooy dëgg-dëgg réalité bi nga xam ne moom la ñu constaté sur le terrain te soxal dundinu askan wi dundinu askan wi nag mooy askan wi moom di nga leen wax taux de croissance toll na fii di nga leen ne bay bi croissance bi toll na fii di leen ne am nañu lii si dugal si dugalum xaalis boo xam ne lepp la wala may la ñoom lañ koy yëgee euh, defe naa ni day sori ñoom dégg rek lañ ci am parce que ñoom la ñuy dund rek ñuy gis la ñuy dund moo di njëg bu cher jëm si ceeb jëm si diwlin jëm si courant jëm si ndox jëm si leneen donc euh, bu ñuy ñëw bëgg a jegele loolu ak li nga xam moo di réalité économique yi defe naa ni dafay baax léeg-léeg ñu bàyyi xel li nga xam moo di dund dundunu askan wi dëgg-dëgg si li nga xam ne moo jëm si location Aliou Khoudia wax na ko si jëndum kër fu mu toll si intrant yi nga xam ne dañ koy soxla si wàllu ciment si wàllu mburu ak yooyu yëpp mm. Euh, def naa ni euh, buñ ko xoolee bu baax dañu xam ne njëg yi kawe na loolu ak li nga xam ne moom la ñuy wax si bonne santé si wàllu koom def naa ni itam euh, bu dee si wàllu koom la sur le plan si wàllu état nu muy gérer mais nag si wàllu citoyen bi moom def naa ni bon santé boobu dafay wëlbatu ko doon maladie si moom. mi ngoog Ndeye Fatou li mu mënta comprendre moom sociologue bi lu jëm ci dëkk bi tar na lool waaye dépense de prestige jàpp na ne sénégalais yi ci taab bi ba léegi tey soo bëggee jënd téléphone un million cheveux naturel bu peut cent mille ak itam yeneen yi ci topp loolee àndul ak lu ñuy nattable wala sax lu ñuy jooy saa su ne ne dëkk bi dafa metti waaw mais nag société du paraître moo ñu ko imposé fii moom li ngay wane rek comme liñ naan l'habit ne fait pas le moine mais fii <laughs> l'habit fait le moine au Sénégal parce que fii daraja bañ leen ko ba de terme daraja loon la mooy taxaw di solu di am looy dégager bien boo xamee ne sa poche dara nekku ci wala sax sa biir des fois sa biir dara du ci nekk loolu nag noonu lañ ñu nàmpatalee ci loolu la ñu màggee amaana peut-être dina mës a changer mais ce qui mooy paraître moom au Sénégal loolu moom kenn mënu ko fee dindi ndax da ngay gis sax ay kër yu dendandoo kër yenn yi macha allah ku la ne ñii añuñu wala reeruñu doo ko gëm parce que mhm. ñu naan biir du wax xam nga loolu yooyu ay réalité sociologique la yoo xamante ne dañ koy doxaale ak di ko demee mais li wér te mooy pour cette affaire de croissance yi ñuy wax ak yooyu note bonne note yooyu ñoom ñi koy calculer moom chiffre yi ak di ci liggéey ñoo ko xam ñoo ko yëg mais hmm. askan wi moom yëguñ ci dara loolu moom ci ñoom rek la des ci ñoom rek ñoo ko mën a expliquer te it temps maître Wade doon nañ fi dégg mu naan la croissance ne se mange pas kon nag ñun croissance boobu ñuy wax ñun lekkuñu ci naanuñu ci soluwuñ ci mais aussi fajuwuñ ci te loolu it lu jar bàyyi xel la mi nga wax xibaar ci tënk muy xibaar bu tiis tukkee euh, ci euh, sous bu Almadi mi faatu niki tey ci euh, suba Pape Serigne Niang lay wuyoo moom nag nee nañu li ko yóbbu bokk na ci malaise niki tey wala niki ci talaata gi ñu génn moom nag dafa remplacé woon ci poste boobu mu nekkoon Khadijatou Sène Traoré euh, ci juillet euh, deux mille vingt deux daañu ko denc niki ëllëg ci ajuma ji euh, ca Thiès. ñoo wax ci leneen soxal xibaar yi ak coordination ëmb syndicat affilié synthèse yi sàkku ci état bu Sénégal ñu ratifié ci ni mu gën a gaawee convention 190 organisation internationale euh, du travail bu ñu sukkandikoo ci coordinatrice ba dina fexe daal wala dina leen may Sénégal euh, mën a wàccoonteeg engagement am euh, yu mu jëloon atum 2000 2019 convention 190 OIT bu ñu sukkandikoo ba léegi ci ay kàddoom dina may kon liggéeykat yi ñu mën a bénéficier wu protection jëm Euh, ci yenn ci ay pratiques yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci seen bërëbu liggéeykaay yaay Khady Samb. nga nekk ci informel wala formel rek nga mën a nekk ci euh, bërëbu liggéey boo xam bërëbu liggéeykaay boo xam sa xel day daal liggéey liggéey mu ñoŋ résultat yi maanaam la ngay séntu nga am ko bu ko defee fruit yooyu bu waddee rek ñëpp mën ko bon da ngay xool 2019 ba nous sommes en 2023 Sénégal ratifié wul nous sommes à 35 pays qui ont ratifié sur le plan mondial 6 on ratifié sur le plan africain alors que ñun au niveau de la COSA dafa projet boo xam ne Ouganda